jubal jubanti. tey boo xoolee tout tout euh, les les les les yi ngay dégg yi ngay dégg sur le plan foncier. Mhm. mais parce que mais ñàkk jubal moo ko waral. waaw c'est mais tu vois dans dans dans dans fi ma nekk. Mhm. ak feneen mais tu vois quelqu'un qu'on nomme mu jël les agents de l'État leen na li. indi ay bénévole ay bénévole mhm. qui n'ont aucun contrat avec l'administration. ñu koy liggéeyal di ko ñu leen di defal lu leen neex. le mal profond alors. loolu am na administration très profond de l'affaire Mbour 4. waaw mais pour te dire que le géomètre bi ñu ko dénkoon tey bi coow li commencé bi mu avant mu muy sentir que ni coow laay ñëw mais dafa daw dem na États-Unis <laughs> parce que xam na ne xam na ne doon nañ ko jàpp. parce que xam ne xam na fa ñu jëm. waaw mais pourtant te pourtant ca ca jamono lañ ko dénkoon mu liggéey ko y avait les de l'administration qui étaient là-bas qu'on a en rade. mën nga joxe turam mu tudd. c'est un waaw c'est grave dem na man sànq laa ko daw na dem na États-Unis et pourtant toute l'application de, de ce site moo ko def mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. et pourtant man dans les temps j'avais décrié mën na ne mooy bi bi coowal sama coowal terrain boobu amee ma ne leen ñoo ngi jël un travail administratif di ko jox des privés ak des bénévoles qui n'ont aucun engagement vis à vis à vis de l'administration tey bu problème amee foo koy réglé alors que l'administration a des qu'on laisse du matin jusqu'au soir là-bas xam nga li tax parce que chef de service yi def loolu mhm. bëgguñu agent yi leen wër xam la ñuy def la ñuy def maguy ba ñuy def si mhm. biir mhm. moo tax ma ne bu ñu jógee ci assise assise de la justice nañ dem ci assise de l'administration